الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci daje bi ñuy am ak yéen talaata bu nekk incha allah muy ay laaj yuy jóge ci yéen ak la nga xam ne ñu nga cay jéem di ko ca tontu suñu talaatay tey bi moom mooy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru rajab sun mami di ka tudde ndayu koor mu ñuy jàngalit ni weer woowe di weeru koor soreetul yal na yàlla yóbbu ñu ca ca jàmm ca nangul ñu ko gannaaw loolu it mi ngi déppoog le 9 ci weeru mars ci 2021 laaj yi nga xam ne nii yéen ngi koy laaj mën naa jaar ci 77 814 42 loolu pour ñu bëgg a laaj wala bëgg a dugg ci groupe bu jàkka ji su dee yaa ngi ci groupe bi moom foo gis ñu bind fa at mi rek soo fa jaaralee sa laaj incha allah dan dana yegg si ci ñun ñoo ñu nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak yéen yal nañu yàlla boole ñun ñépp ci ngërëmam nangu ñu àdduna ak àllaaxira kon laaj bi nga xam ne nii moom lañuy jëkkee tey jii kii moom day wax ne daa dégg ne àjjana day boo fa demee yal nañu fa yàlla yóbbu ñun ñépp dañ naan la nag léegi jàngal day jàngal nga yéeg say daraja ñu ngi fàttali na àjjana téeméeri daraja la diggante daraja bu nekk ak moroomam mu ngi mel ni diggante asamaan ak suuf su ko defee ngay jàng di yéeg mu ne waaw bu doon ne nag yow am na saar yoo xam ne mokkaloo ko waaye am na aaya yoo ca mokkal ndax aaya yooyee day konte ahaka yi day konte mooy tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul jàngal nga yéeg sa place ma nga ca saar wa nga mujj tari waaye dana sa place ma nga ca aaya ba nga mujj tari su boobaa kon bépp aaya boo mokkaloon boo ko taree rek say daraja day yéeg loolee même bu doon te ne ni saar wa benn aaya boobu rek nga ca xamoon loolu kon di ñaax lu ñu man ñu góor-góorlu jéem a mokkal ci téere borom bi rawatina yenn ndaw ñi may dégg ni ngeen def ba am bac def ko ba am maîtrise un dixième ba su ngeen ko defoon yàlla wërsëgal leen ngeen mokkal téere borom bi wala boog mokkal la ci ëpp mu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay laaj mu ne moom day daa dégg benn waaraatekat mu ne jigéen bu doon dankaa fase ñetti yoon ak fukki yoon ñoo ca bokk yem heure boo xamee ni nii jëlaat nga ko ca idda ba jeexul rekk su boobaa dagan na la waaw loolu day bokk na natt bu ñu yàlla nattoo tey lu bari ci rajo yi ak yi façon nit ku nekk day ñëw di wax wax yoo xamee ni nii teguñu ko lu dul ci bëgg siiw waaye mbokk julit fase ñaari façon fase la muy fase gu ñuy delloo moo xam ne nii ci ñaar dong la yem heure boo fasee sa soxna idda ba jeex idda ba jeexul su boobaa dagan na nga takkaat ko su dee idda ba jeex dagan na nga takkaat ko su idda ba jeexul moom da ngay jëlaat rek sa soxna la ñaareelu fase ba ñëw idda ba jeexagul sa soxna la ba léegi da ngay jëlaat idda ba jeex na bu la neexee takkaat ko waaye boo ko xisee ba fase ñetteelu fase su boobaa idda jeex ak ñàkk idda jeex soo ko bëggaatee fokk nga xaar ba beneen góor takk ko ba góor googee bokkoog moom ab lal su ko fasee ci la lay doog a daganaat waaye képp ku la wax ne ki soxnaam ñetteelu fase tànk idda bi jeexul mën na koo jëlaat kooku la muy wax xamu ca dara wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii it benn ndaw la boo xam ne nee na dafa am ñu muy nekkal ñu ne ko yow day sa diine ji matul ndax amoo la nga xam ne moom mooy ab sëriñ waaw mbokk de sëriñ day ñaar la mooy sëriñ boo xam ne moom la doomu aadama yi doon ne ci seeni baay ñu jàpp ne kat yow gannaaw ba nga gémmee yàlla gëm yeneenti yàlla fokk nag nga am sëriñ saar moom mooy sa yaakaari àdduna ak alaaxira kee jàpp ne sëriñ caam mooy yaakaaru àdduna ak alaaxira façon sëriñ boobu day tasaaroo na lool ci suñu réew yi waaye sahabatul kiram day xamuñu woon loolu génération ju tab xamuñu woon loolu loolu moo tax doo dox mukk ba dégg ku ne la man imaamu malik mooy sama sëriñ wala omar ibnul xataab mooy sama sëriñ wala ñun ñu ngi bokk ci mbooloo abu bakarin saddiq loolu amul ndax loolu amul woon loolu daa dab lislaam ay siècle après amma bu dee ñaareelu sëriñ bi loolu de mun ta ñàkk suñu borom dane maa leen génne seen biiru yaay yi xamu leen dara gannaaw ba nag ma xamal leen xam googu nag yàlla da koy jaarale ci ay nit looloo tax amul kenn koo xam ne ni dana xam diine yàlla ji lu dul dem na ci ay moroomi nit boroomi xam-xam ñu jàngal ko diine jooje bu dee sëriñ boobee dee munta ñàkk ca loolee lu ci bari du doon benn sëriñ naa mën nga am chance dajeeg benn sëriñ boo xam ne li nga xam ci diine yépp moo la ko jàngal kooku dee sab sëriñ la kooku dee sabab la ci nga dem àjjana mën nga koo jële yépp ci téeméeri sëriñ waaye daal nañu xam ni sëriñ ba mi ngi yem ak yow ci xamal la lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax soo ca góorloo mën na am yaa koy ëpp ay daraja ca yàlla yaa koy gën a kawe daraja ca yàlla bal sëriñ ba sax moom mën naa dem sawara yow nga dem aljanna loolee kon ñu xam ni sëriñ ñaareel bi de munta ñàkk ca may ku nekk ci ñun jéem sol saw dal ubbi say nopp ubbi say bët jéem a jàngi diine ja diine yàlla ji ñoo ñee la koy jàngal nag na doon ñuy dund la wala ñuy dee tey jii la ëpp ci li nit ñi jànge mooy ñoo xam ne nii dañoo faatu bàyyi fi ay téere bàyyi fi ay seeni wax yal na yàlla fayal ñu leen mi ngi noonu mbokk jullit wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom soxna la buy laaj mu ne ndax jigéen dana am sañ-sañ dem liggéey yi ci beneen région boo xam ne moom day nekku fa ak kenn waaw ala kulli xaal bu dee ne day li ñu jàng ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne daganul jigéen di am benn tukki bi muy tukki tukki boo xam ne dana durer ñetti fan ci àndul ak koo xam ni sëy aram ne seen diggante moom am beneen xadis buy wax tukki boo xam ne dana nekk guddi ak bëccëg muy fanu lëmm ca àndul ak la nga xam ne muy maxaram loole sunu jamono ju jëkk ja boroom xam-xam yi daanañ koy natt ci diiru ay quatre-vingts kilomètres suñu xoolee boroom xam-xamu léegi ñoom dootuñu ko tënk rek ci kilomètre waaye dañuy boole kilomètres yi ak temps ba ndax xam nañ ne suñu jamono tey jii nit ki mën ngaa dem léegi deux cent kilomètres dellu siwaat te fekk ne du mat sax la nga xam ne moom mooy genn wàllu journée euh, su ko defee kon dañuy boole ñaar yépp mooy tukki ba fokk mu mat au minimum vingt quatre heures fokk mu romb quatre vingt kilomètres su boobaa lañuy ñuy ni lii di ab tukki la loolu nag dañ naan jigéen amul droit di ko def lu dul ci loo xamee ne nii day ànd ak maxram lépp lu yonent yàlla tere it lañ ciy génne mooy ña nga xam ne dañoo nekk ci lor lor googee nag dootul dellu ca mboolemi jigéen ña waaye day dellu ci jigéen bu nekk ñu xool ndax yow sa kaa yéggi na ci lor nga mën a def loo xam ne yonent bi da koo tere am déet mu ngi noonu wallahu subhanahu wa alam waaw kii moom mu ni ñun de dañoo jële woon fii avion <clears throat> ñi ngi demoon jëm bàyyi <clears throat> bi ñuy décoller timis jotagul waaye ñun jàpp nañu rek ni daañ yegg avant fajar su ko defee ñu boolee fay timis ak gée yàlla dogal bi ñuy atterrir <clears throat> ñu fekk jant ba fenk na léegi nag ñu xawoon a xëccoo ci nu ñuy def mu doon laaj daal kaa bu mel noonu ku mu dal julli yi noo koy def waaw maadaama timis raw na gee raw na fajar raw na da ngeen di jëkk a julli timis gannaaw ba ngeen julli gee doog caa teg la nga xam ne nii mooy sa fajar loolu lañuy ñuy julli yi nga xam ne dafay raw loolu doonte ne ne daan ci profito ci yow mi nga xam ne léeg-léeg ngay dégg yenn laaj yoo xam ni biñ ko laaj laajee yàggul ñu koy waxaat def ci am laaj yoo xam ni nit ki da koy jëfe bés bu nekk muy wàllu julli ca doomu aadama bi ay julleem yàqu moo am ca lënt ba di ko laaj loolee moo tax ñu ragal ni déggul woon tontu yu jëkk ya moo tax ñu koy baamuwaat léeg-léeg nag bu dee yenn laaj yi nga xam ni jëmul ci ibaadaat yi bu dee ne dañ caa tontu woon ci euh, dars yi nga xam ne yàggul su boobaa dañuy bàyyi ba ab diir ñëw ñu dog ca commencé tontu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa alam waaw kii moom dafay laaj mu ne moom day dafa am compte banque islamique mu ne nag dañu koo tegal benn intérêt boo xam ne dañ na ko lii de moom lu dagan la sa xaalis moo ko liggéey loole nag moom moo ko jaaxal ndax lan mooy différence am ak yeneen intérêt yi waaw bu dee banque bi day banque islamique la ca mooy yemul ci turu banque islamique rek waaye banque la boo xam ni dañ ko tëral ci régalul islaam su boobaa day heure bu dee da ngay ubbi compte dañ laa war a leeralal ne la ñun kat xaalis bii ñu jël ci yéen dañ koy investir ci nangam ak nangam ak année bu nekk li juddoo ci lañ investir inte euh, bénéfice bañ ca am dañ koy séddale suñuy client loolu ñu leeralaale leen ne leen bu dee ne it dañoo perte dañuy xam ne client bi dañuy jël ci xaalisam lu toll ne la ñuy perte su ko defee loolu la ñuy tudde mudaaraba mooy loo xam ne sa alal da nga koo mu liggéey man nga caa gañe mën nga caa perte loole bu amee day ñu leeral ko bu année bi jeexee ñu woo la ne la kat ba nga fi amoon ba ñu sédd ba ñu séddalee bénéfice banque bi am nga ci cent mille cent mille yooyu dagal na la waaye bu dee jëmmi ubbi compte rek nga xam ne dañ lay garantir ci ne nii chaque mois wala chaque année da nga fi am temps loolu ni bànk classique yi di def loole moom da ngay gis ne bu ko banque islamique woote it dagganul ma bu dee ci xaal bi ma la jëkk a wax kaa bi ma jëkk a wax su boobaa loolu dara nekku ca wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom benn waay la buy laaj dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne daal bëgg naa koo takk xale bi am na diine xale bi am na yar waaye sama yaay daal moom xool ci wàllu askan ne ma daal kii moom doo ko takk ah léegi nag man affaire bi def maa def problème ma doon laaj ba xam waaw liñ lay wax day bu dee da ngay laaj ndax dagan na nga takkam daganul nga takk dañ naan la dagan na nga takk ko sa yaay amul droit ci ne la kii ngay takk ak kii nga dul takk am maa nag bu doon conseil ngay laaj conseil bi day dañu naan la naxanteel ak sa yaay même bu doon ren ba déwén ñun comme yàlla dañoo nattoo ñu nekk ay imaam gis nañ ci kaa yi jeex sëy boo xam ne bañ ko jëkkee yëkkati bàyyi ba daa bañ ba tëdd ci naaj ba wala yaay ba bañ ba tëdd ci naaj wa na doon ci côté ku góor wala côté ku jigéen waaye ba naxante amee mujj nañoo d'accord sëy bi jaar ci yoon amma nag bu dee yaay daal fi tërlu ne da kii daal bëgguma ko tey bëgguma ko ëllëg su boobaa day lañ lay conseiller mooy fexeel uti ku yaay d'accord yaay dafa jege doomu aadama trop nga takk koo xam ne nii nag sa yaay bëgg koo gis loolu baaxul ci yow baaxul ci soxna si yaay du la ñaanal yaay mi ngi bëgg toujours nga gis ci moom loolu naqari ba mu ne waxoon naa ko kon daal bu doon ci wàllu conseil moom dañu naan la soo mënee lu uti keneen day moo bu dee dagan nag xaram na nag su boobaa dañ naan le moom day dagan na wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj ki nga xam ne dafay toog toogaayu noppalu ci diggante ñaari rakkaa yi ñu tuddee ko jalasatul istiraaha nga xam ne boo siggee au lieu nga jóg taxaw da toog mu ne ndax kooku fan lay waxee allahu akbar bi muy siggi wala bi muy jóg waaw li ñuy jëkk a wax day mooy euh, jalsatul istiraaxa boroom xam-xam yi dañ caa am juuyoo bu doon te ne ni li siiw ci suñu gox yi moom mazhab Maalik ñoom reconnaître ñu ko su ko defee euh, la nga xamee ne nii ña nga xam ne ñoo ko nangu te man ca laa bokk mooy ay xadis yu wér ñëw na ci euh, ñàkk a contre dañuy jàpp rek ne xadis yi yeggul ci ñoom su ko defee kon yow boo koy julli ab zikr la ñaari position la yoo xam ne benn zikr moo fa am mooy sigg ci sujud ak jóg taxaw yonent bi alei salaam dañ ne heure bu daan sëgg day kàbbar heure bu daan jóg day kàbbar léegi nag yaa ngi ci diggante jóg ci sujud ak jóg taxaw ñaari position yooyu foofa waxe allahu akbar baax na mën ngaa wax allahu akbar toog mën ngaa toog ne allahu akbar jóg ndax benn zikr la ci ñaari jëf allahuma lu dul su dee da ngay jiite mbooloo boo xam ne day xamuñu loolu xamuñu toogaay boobee la ca gën mooy siggil ba toog jóg doog wax allahu akbar ndax ñoom boo jógee sa sujud ne allahu akbar toog mbooloo moom jóg nañ taxaw loolee ñu bàyyi ci xel bu baax danaa la wax sax soo demoon ci yenn gox yi nga xam ne xëy na du ñu dégg sunna lu bari dama lay wax ne yow mi jiite bul def jalsatul istiraaxa ndax jalsa boobu mbooli mi boroom xam-xam dëppoo nañ ne bokkul ca faratee julli ña koy wax ñépp ci sunna julli lañ koy boole te boo demoon tey jiit ci lu bari ci sunu mag ñi ñoom jàpp nañu ne heure boo xamee ne yaa ko tey di toog ci diggante ñaari sujud loolee da ngay gis ni bu yàqul su julli it fokk war nga koo sujjóotal kon bala ngaa indi njaxas ci ñoom bàyyi loolu ca masala boobu yonent bi alei salaam jëfe na ko ci yu bari boo demoon nag ba jàngal leen bañ xam nag ba ñoom boo toogee ñu xam lii la tax a toog ah su boobaa nag moom nga jëfe sunna moo gën mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu waaw mbokk bi moom dafay laaj léegi-léegi dañuy xëy ñu ne a euh, Expresso wala Orange def nañ promotion waaw ndax loolu jënd ko du riba déedéet mbokk bu dee njaay direct loolu riba amu ci waa ji ubbi woon magasin di jaay ay téeréem téere 2000 téere 2000 ba mu xëy suba ne gars yi leen téere mil téere 1000 <laughs> loolee amul problème donc ko agence bi it tey da nga daan jënd 1000 francs mu jox la benn temps boo xam ne da nga ca mën a téléphoner loo temps boobee mu la jaayoon 1000 francs mu ne tey day boo ma joxee téeméer ma jaay la ko loolee kon dañuy gis dara nekku ca wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk bi moom day laaj moom zakkaatu kër ak zakkaatu oto naka lay demee mu joxe ci misaal mu ne waaw ndax mënoon naa sama kër ma jël ca benn néeg daal di koy jox benn néew ju doole loolee nekk zakat ba ala kulli xaal liñ lay jëkk a wax kër kenn du ci génne zakat oto kenn du ci génne zakat xanaa lu dul waa ji nga xam ne daa yoroon xaalisam di jënd ay kër di jaay di jënd ay oto di jaay nga xam ne jubluwaayam du dama am kër walla am oto jubluwaayam mooy rekk jënd jaay comme kiy jënd ay xar di jaay su boobaa dañ naan kon dafa dugg ci beneen règle loolee moom la ñu tudde urudu tijaara mooy marchandise boo xam ne dañ koo gaaral ngir jaay ko ku mel noonu may génne zakat ca alal ja am maa ki nga xam ne amoon na fukki kër waaye kër yi da koo luye yee mu dëkke ko yee mu kii ko zakat warul ca kër ya ki amoon fukki oto zakat warul ca oto ya ki amoon taxi yay daw zakat warul ci taxi ya xana lu location bam jele ci kër ya ak ngañay bam gëñe jele ci taxi ya xaalis liquide bobé de mom su ko dencee ren ba déwén su baba zakat dana ci war waye jëmmi kër jëmmi auto lolé zakat waru ci wallahu subhanahu wa taala alam wa soxna si mom da fay laaj la nga xamee ni mom moy poser posé lii ay xef ca la nga xame ni nii mooy seeni bët ca jigéen ña nañ koy defe ala kulli xaal lenn ci boroom xam-xam yu tombeeg loolu dey ñoom dañ koy delloo ca xadis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax laana allahu alwaasila walmustawsila yàlla day ma ngay rëbb ña nga xam ni dañuy yokk ak ña leen di yokkaloo loolee nag comme yenente bi da koo boyal ka jël karaw yokk ca karawu boppam ak ka yeneen yeneeni xef yokk ci ay bëtam ñoom ñépp yokk nañu la nga xame ni nii mooy mbindub borom ba subhanahu wa loolu daal tax na ba sunu mag ñi daanañ taaru ca xamuñu woon loolu ñu waxuma la ca médecin yi wax ca lor gam mën a lor ca bët yi waaye jigéen jullit ngalla waay moytul lu mel noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk bi moom dafay laaj man day dama am sama benn frère mu bëggoon a defar benn tool maraîchage mu ne ma woon nag daa bëgg man ma dimbali ko tombe naa nag man may génn zakat ndax mën naa jël sama zakat dimbali ko ca kay <laughs> kooku mooy ka gën jox zakat bokk na ci zakat jubluwaayam mooy fexe ba soqali société bi donc ndaw ñooñu nga xam ni am nañu xam-xam am doole waaye amuñu benn moyen na doon ñooñu dañoo bëgg am ay outil maçon ay machines yu ñuy jiyee ay machines yu ñuy ñawee walla kooku nga xam ni daa bëgg a dem ca toolam ñooñu ñoo gën a yey ci ñu jox leen ay zakat mi ngi noonu allahuma lu dul boo ko kay joxit nga xam ni du loo ko lebal yaa ko ko jël jox ko ko dimbilee ko ko na doon wax nga ko ne lii zakat la wala waxoo ko ko it mu xam ne lii daal yaa ko ko jël yaa ko ko may moomeelug boppam la du am benn charte boo xam ne bu cay tege la wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk bi moom dafay laaj mu ne <clears throat> dañ ne bu ñu nee suba la tabaski nga jël xar mi nga xam ni dañ ko war a rendi ñu jox ko ndox mu bari mu naan suñu xëyee rendi ko ndox moomee ñu fexe ba am luñ ca tànk bépp jigéen bu nekk ci mat même bu doon dañ ko programme césarienne su ko naanee rekk day daal di am doom ci jàmm ala kulli xaal lu mel noonu ñun xamuñu ko ca itamit tënk gën ko tënk ci tabaski moo lay won ni du loo xam ne nii lu sharia di nangu la ndax xar ma rey ci tabaski ga ak xar ma rey ca ngénte la ak feneen amuñu benn tegtal ci sharia buy wone ni lañ jële ca xarum tabaski dafay mën a def lu beneen xar amul loolu daal lañuy wax ca wàllu googe ala kulli xaal lépp loo xam ne day jëriñ ci faj dañuy xool ndax shirk amu ca ndax ay bidaa amu ca loolee bu ca lenn amul sharia amoom bu dee expérience wane na mi ngi jëriñ ca du lor loolee dana ko nangu amma même bu dee nangu nañ ne njëriñ mi ngi ci waaye nag yoon wañ koo jaare dañu koo jaare ci wàllu shirk su booba islaam danaan na am am na njëriñ waaye nag yow jullit doo ko jëfandikoo wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk bi moom day laaj man day damay def qiyaamul layl di jàng alxuraan ca guddi dama xamul nag ndax man kaamil bi may jàng di ko topp su ma jàngee ba yegsi ci aw saar bëccëg ba ma bëgg a jàngaat ndax mën naa xool fa ma yem rek ma jàng ko ca bëccëg bi su guddee ma xool fa ma yemoon ci bëccëg bi ma jàng ko ci guddi gi wala damay jagleel kaamil xiyaamu layli ak kaamilu bëccëg déedéet mbokk jullit kaamil bi benn kaamil la la nga cay jàng ci xiyaamu layl la nga cay jàng ca bëccëg la ngay jàng ca kaw ak la ngay jàng ca suuf loolu lépp da ngay gis na mooy yem su ko defee la gën cim njàngin mooy nga jóge ca kaw wàcc ci suuf comme naka euh, euh, yonent bi daan defee saxaaba daan ko defee ak mag ñu baax ñu daan defee mooy ñii dañ daan sas seen bopp ñii di ko wàcce weer wu nekk ñii di ko wàccee semaine bu nekk ak yu demee noonu ala kulli xaal la ngay jàng ca guddi bu bëccëgee euh, continuer foofa bu guddee continuer waatal fa nga yemoon ca bëccëg ba mu ngi noonu wallahu subhanahu wa alam waaw kii moom dafay laaj ci ne ndax euh, dañuy tere def sàppe ci diggante poto jàkka ji waaw loolu de daañ ko euh, bañ su dee ne jàkka ji yaatu na kon ñu ni nañ ber sàppe yi benn sàppe bañ a dagg allahuma lu am na ci boroom xam-xam yi yoo xam ne dañuy ne poto ba pour mu dagg sàppe bi mooy poto boo xam ne gën naa yaatu nit te loolu jafe nañu gis ko ci suñuy jàkk senegal yi waaye almuhim poto ba lu mu sew sew sew maadaama daal manees naa sàppe ci jàkke ji ñépp dugg ci benn sàppe du dagg loolu moo gën amma nag bu dee bisu aljuma wala gisu xew-xewa ñu gis ne ñu defee loolu dana am ñuy julle ci biti lu boobaa dara nekkul ñu sàppe ci diggante sàppe yi wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay uh, laaj mu ne man dey sama boroom kër daf ma yónnee message whatsapp ne ma xamal ne fase naa la ah moom nag yu deme moom daana ko foy bu yàggee mu génn ca waaye nag dama xamul bii paa ni mu ko waxee daal ni mu ko leerale ah, may laaj nga xam man dama koy considéré fasem déet ala kulli xaal li ñuy jëkk a wax fase kenn du ko fawee yonent bi aleyhi salaam nee ñett yi day loo ci wax dañ koy jàppe dëgg takk naa ko fase naa ko goreel naa ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee woo na la ci sa whatsapp sa jëkkër la leer na la sikk amu ci mu ne la diw nga naa mu ne fase naa la dellool ca say waajur yala maye woon ñu xamal leen ne moom kat diw nee na fase na ma fase googee maadaama wax na ko nga dégg dañuy jàpp ne lu tab bii la su dee ne ak rëccu am na ca ñu xool ndax ñaari fase jiituwu ko woon comme niñ ko waxee ci njëlbeenu waxtaan bi su dee jëkku laa fase ñaareelu fase su boobaa ñu woo ko yedd ko xamal ko ne fase kenn du ko foye daal di la koy delloo nga nekkaat soxnaam loolu daal la wax ci wàllu googu wallahu subhanahu wa alam waaw xam naa am na ci koo xam ni dafay waxit ne imaam ko la doon laaj ndax mën naa ajali sama yaay ak la ca tontu woon waroon nga caa dolli bala nga koo ajalit na nga aj ba pare waaw loolu day mooy la nga xam ne jumhurul ulama loolu la ñu wax mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi day dañ na bala nga ajal kenn yow dangay aj ba pare loolee kon mi ngi noonu jazaahu llahu xayra amma nag bu dee laajte bi nga xam ne nii incha moo ci mujj kii moom dafay laaj sama benn xarit day dafa demoon ci benn magasin ci fan yi ah lañ jële ca magasin ba toj ko mu ñëw nag may ma ci léegi nag xaalis boobu mu ma jox laa xamul nu may def ak moom waaw li nga xam ne day moom la ñuy jëkk a wax mooy ngalawaay natt bi ñu yàlla nattoo ci Sénégal yéen ndaw ñi comprendre nañu leen da ngeen a jaaxle da ngeen a sonn waaye nag xam leen ne ay doomi jullit ngeen yàlla mooy natt jullit doomi patron yi ña nga ca avion ya ña nga ca yacht ya yéen yàlla nattoo leen ngeen nekk doomi baadoola ngeen sonn bu leen boole ñaari mbir boole coono àdduna ak seen merum borom bu leen ko def mukk su ko defee coono yi lu métti métti sax leen ci mën gu rafet sax leen ci sabablu ak lu mu néew néew sax leen ci ñaan seen boroom am maa mer naa dem dajj magasin bu jàmbur koo xamee ni nii yoonam nekkul ci wàllu politik nga jël alalam yee jëloo alalam waaye nga ñëw taal yàq ko doomu jullit du def loolu suñu borom mu ne wallahu la yuhibbul fasad yàlla bëggul yàq wala yuhibbul mufsidin bëggul yàqkat yi loolu la ñuy jëkk a wax ci loolu ngal la waaye yow doomu julit waxuma bul bokk ci loolu waaye képp ku la déggal ci say xarit ci say dëkkandoo bu événement yi amee woo leen laayi leen biir ngir ñu bañ caa bokk loolu la ñuy wax ñaareel bi yow moomu nga jël la nga jël xam nga ne moomoo ko amma yow mi toog nag ñu dem jël jox la loole waroo ko jël alal joo xam ne wóor na la ne kii may lii mu may jox alali jàmbur la may jox yow jullit amoo droit di ko jël loolee ñu bàyyi ci xel bu baax maa ngi nekk ak suñu jàkka ji benn ndaw boo xam ne moog yaayam yal nañu yàlla barkeel barkeel leen day sànn dafa ma dikkal mu ne ya mu ne man kat dama romb ca station ba magasin mu ñu toj ko nit ñi jël ma nit ma jël bi mu bi mu ñëwee kër ga yaayam na ko demal ci imaam nga laaj ko ndax dagan naam déet ndeysaan mu ñëw ci man di ma laaj ala xaal lañ ko tontu mooy bu leen ko lekk jël leen ko ngeen sarxe ko bépp alal boo xamee ne nii kala ko jox da ko jële ci alali jàmbur yow waroo ko jël yow julit bu dee yàlla nattu ne la ba nga jël ko it waroo ko lekk danga ko war a delloo masaakiin yi mbokk kon mi ngi noonu fitna yi ñu dund ci fan yi alhamdulillah yàlla dalal nako yalna yàlla fay ko ci sénégal yàlla buñ dundeti lu melne mom moom ña nga xam dañ ca faatu yal yàlla yërëm leen ña ca gaañu yalla yàlla safara leen ña ca yàqule yalla yàlla wutal leen lu gën mbokk mi ngi nonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh